waaw euh, dañuy ñëw fii ak euh, naxar bu metti parce que ñun su ñu nekkee assemblée nationale di voter budget six cent et quelques milliards du pour suñu ay rak di dund situation bi benn ñaar di tax ñuy wax ak métit parce que ñun 2009 je le dis bien boobu ñun ñi ngi def première nekk li lycée des Parcelles Assainies on a vécu la même situation tey douze ans plus tard ñuy dundaat la même situation loolu la ñu naan dafay jeex ci réew mi moo tax ñu ne suñu gouvernement dëkk nous voulons des négociations de solutions nu voulons des négociations pour sauver lekkool nu voulons que nos élèves que nos sœurs que nos frères étudient dans de bonnes conditions nous ne voulons plus d'abris provisoires dans ce pays loolu daf fiy jeex nous ne voulons plus de de de de gap en tablement loolu daf fiy jeex. 61 ans dafa doy ñuy dund les situation moo tax ñun dañu jël tey sunu responsabilité en toute spontanéité ñëw teewal ak sunuy rakk àndandoog ñoom marchandoo pacifiquement duñu toj duñu yàq duñu kayase mais dañ koy def dans la discipline xeex lu ñu moom parce que état du Sénégal ak constitution bi moo garantir liberté d'opinion moo garantir liberté d'expression kon bépp citoyen bu am lu la metti bépp citoyen bu gis ne dañuy salfaañe say àq ak say yelleef ngay ndaw ngay mag ngay góor di jigéen am nga droit ñëw ñaxtu ko looloo waral tey ñu def solidairement ñëw ak sunuy frère sunuy rakk yii nga xam ne ñoom ñooy avenir suba te suba tey lañ koy préparer ñun nag duñu député yoo xamante ne dañuy toog buy neex rek ñuy tam buy neex buy naqar yëpp dañuy nekk au côté de question que nous défendons muy éducation muy santé muy le bien-être des population parce que seen dërëm ak seen ñaar dërëm lañ ñuy fayee léegi nag loolu daf fi jeex ay négociation yoo xam ne guddal jél la dañu bëgg ay négociation yoo xam ne problème mu école bi solution structurelle la ñu bëgg nga xam ne sunu rakk yi dootuñu jooyati grève dootuñu jooyati abri provisoire dootuñu jooyati gap en table mais dañuy jooy ay résultat d'excellence ndaxte daaw bi fi ay problème mu mars amee lu gaaw gaaw état du Sénégal nee na dina dégager quatre cent cinquante milliards pour que xëyu ndaw ñi mën a nekk dëgg loolu moo tax ñu ne négociation yi nga xam ne état du Sénégal am na ko na ko baral ak enseignants yi beneen bi ñu bëgg xam mooy tey sunu examen yi kañ lañ koy def ndax dañuy def ay session de rattrapage parce que yéen a ngi dégg chaque fois ñu ne ay heures ñi ngi koy perdre loolu la ñu bëgg ay résultat yu probants si léegi léegi léegi amatul xaar tant que tey su trouvé wuñu solution yu durable sur l' éducation dañuy continuer di ànd ak sunu rakk yi parce que seen avenir moo nekk en jeu injustice la tey ngay gis ay doomu borom barke di jàngi pendant ce temps sunu ay rakk. nekk ci mbedd bi loolu mooy créer frustration loolu mooy indi désarroi loolu mooy indi manque d'espoir dans ce pays là léegi nag ñun jël nañ suñu responsabilité accompagner élèves yi wutuñu si benn gain politique je le ñëwuñu fi pour am benn gain politique dañ koy def parce que suñu avenir rakk yi ñoo nekk en jeu te dootuñu nangu je le bien kenn di foowee éducation wala ngay salfaañe ak ak yelleefu ndaw ñi parce que jàng droit la